ak yeneen yi nga xam ne jot na fee xew ah fas yéene ci Cheikh ak nag waxtaan damay wax ne heure bu dara xewee rek dañuy dem jël suñu micro taataan yi nga xam ne yàlla da leen a dénk xam-xam ci wàllu woowu mu di Serigne Saliou Dieng fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ci wàllu actualité waaye it ci wàllu ñaan sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xaw hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent di ñaanal kilifa diine yëpp di ko ñaanal kilifa aada yi di ko ñaanal suñuy kilifa si mun Muntaxa Mbàkke Basiru si mborom yàgg ko fi lool mm. di koy di ko ñaanal yeneen kilifa diine yëpp di ko ñaanal eh, ki nga xam ne moo toog suñu xalifa ma muy si ab Dafit yenn si mborom yàgg ko fi lool ba mu si mborom kàtt ko ba mu mën a àggale suñu liggéey maam bi si barke maam si Isa Jenn eh, sëñ bi am na solo eh, keroog ñu gis président Macky Sall def discours ni moom bokkul ci élection 2024 bi mu jur coow lu bari sénégalais yi ñi naan est-ce nekkul da koy wax nii ñi naan non président actuellement dootul posé wu waat euh, naka nga jàngatee mbir moom waa jàngat googu moom wax dëgg yàlla man dama see kontaan te man loolu moom bettu moom parce que euh, président Macky Sall moom moom fekk na moom réew moo ko ñor te sénégalais mu bañ a def troisième mandat moom si euh, lañ si moom si loolu lañ bëgg moo tax lii mu def moom wax dëgg yàlla moom kontaan nañ si lool te ñu ngi koy ñaanal suñu borom tamit defal ko tawfeex defal ko mboolem jullit ñëpp. te lii moom wax dëgg yàlla kontaan nañ si. parce que euh, bu bu su wax koon loolu rek xam day day nekk loo xam ne day dëkk bi day tàkk lii moom taxawaay moom ñu ngi koy a baax a baax ñu ngi baax. incha allah ndax jàppoon ni da koy wax nii rek pour defal sénégalais yi mais bientôt mën na ñëw ni maa waxoon yàlla man moom loolu sama gis-gis moom man yaakaaruma ko ma moom si koy jàppee te président Macky Sall xam naa yeewu noonu Sénégal yi te yeewu noonu kilifa diine yi parce que kilifa yi wax na yow moom te ñu ngi sant bu baax a baax a baax si lim nungul kilifa yi si ñàkk a def troisième mandat bi. Hmm. waaw parce que loolu moom am nañ si yàqin bu baax a baax ne moom troisième mandat moom du ko def incha allah. Hmm. ba tey sénégalais yi a am jaaxle ci candidature Ousmane Sonko. waaw candidat Ousmane Sonko moom loolu moom dafa dafa xaw a sa loolu moom si état bi lay lay dépendre pour Ousmane Sonko bokk si candidat 2024 moom maa ngi gis nag sëriñ si di génn di wax mais teguñu ko fenn loolu si seen nasu bakkan waaye loolu moom ñu ngi ñaan président Macky Sall moom mu jàpp sul bu baax a baax a baax ak ak nguur nguur gi jàpp si bu baax ndax Ousmane Sonko moom ku li ñu koy wax mu bëri gën si mbasal puus mu dem ñàkk puus mu dem si mboroom moo moo bi xal yi ko si moo tax loo wax si moom sax su fekkee ne safaan la sax dangay gis moom xale yi di la di la saaga dañu moom ay kilifa moo tax lépp lu ñuy wax lu ne dañ ciy xool suñu diggante suñu borom du ne gis nañ du gis nañ naa waaye ñi ngi ñaan président Macky Sall si euh, moom mi nga xam ne moom fekkee ne Sénégal moo ko ñor te bëgg na Sénégal mu jéggal Ousmane Sonko te baal ko mu mu mu nekk mu bokk candidat 2024. Mhm. incha allah rabi. am na solo ma ñëw ci wàllu ñaan euh, fi ma njëkkee xam na ni seet mooy buntu ñaan. Euh, ci wàllu seet su ma nee seet yóbbaale naa li si xaar ma mel ne sax dafa am dafa xaw am différence. waaw bi la wàllum seet ak li si xaar bokkul li si xaar da koy fanaanoo bi la wàllum seet moom euh, seet jooni jooni mën naa am képp koo xam ne tey man ni may seetee képp koo xam ne wax nga ma sa tur waajur bi jigéen ak sa tur ak sa sadd même bu fekkee ne dañ laa liggéey ba suul ko si armée dama la koy wax. man sëriñ bi man sëriñ Sall rek maa doon taxaw fi di wax di seetal nit naan ko diw moo la liggéey diw ak diw waaye loolu moom suñu kilifa moo ñu ko tere moo tax loolu moom bàyyi nañ ko mais képp koo xam ne tey jëflante ñu si wàllu seet li nga xam ne sëriñ bi moom ak yeneen sëriñ yi nga doon seetlu bokkul incha allah rabi. am na solo ba tey damay ñëw ci wàllu euh, ngóor mu nekk feebar boo xamante ne tas na sa yu bari néeg yu bari tas na te yàlla suñu borom dénk la ci benn secret wala ay secret ba sax bëri na ci ñoo xam ne fii la ñuy ñëw nga leen di jox say secret ñu dem di ko joxe joxewaat eh, wàllum ngóora. waaw wàllum ngóora moom li koy waral li koy waral dafa dafa bëri lool wàllum ngóora li koy waral bëri na parce que foofu mu bëri mi day waral néew kàttan su fekkee ne lekk eh, lekk gi da koy waral wala lekk boo xam ne da koy emballé muy muy muy fanaan loolu da koy loolu da koy waral rab da koy waral waaye ñun moom suñu borom dimbali leen dimbali goo xam ne moom ngóora bi ñu yor man kese ma mën a téye man kese si sëriñ ngay gis ku téye kaamil waat daan ngóora bi mu la jox soo gis résultat nga ñëw ma delloo sa xam nga loolu gis goo sëñ bu ko def waaw man sëriñ Saliou kese maa koy def moo tax moo nekk nii benn pot bi mooy traitement bi wenn pot mooy traitement yi moo lay faj ba nga ba nga wér hmm. waaw alxuraan laa laa wala alxuraan bi ma téye xam na ne képp ku ma ko jox gisoo sa résultat boo ñëwee ma joxala sa xaalis loolu moom man kese maa koy def gisoo beneen sëñ bu ko def maa ngi koy la garanti la waaw am na solo ma ñëw nag ci wàllu hémorroïde bu nee bu ñu nee ngóor tamit daanaka dafa xaw a dafa xaw a laalaale wàllu hémorroïde aussi. waaw dafa xaw a laalaale wàllu moom li koy joxe moom dafa bëri toogaay bu yàgg bi wala di lekk gerte tamit da koy da koy joxe mais ñun moom li ñu si moo nekk nii muy lii nii juróom takk lay nekk gis nga boo ko boo ko naanee bépp bu nekkoon si yow da ngay da ngay ko moom. loolu moom fañ nañ nit yu bëree bëree bëri mi ngi dem fépp Sénégal incha allah loolu moom suñu borom defal nañ si taw bu baax a baax a baax sëñ bi lan mooy sa secret ci wàllu noot euh, man damay wax ni nopp 24 heures mosuma koo gis mais fii rek laa koy gis ci yow. waaw fekk na ne wàllum noot la man ni may nootee gisoo benn sëñ bu koy defee man man su ma la nootee da ngay dem ba gis résultat li ma la liggéey nga soog may fay. Mhm. képp te man te man sama noon moom nekkul rek may woo téléphone rek na ma sëñ bi liggéeyal ma ma nootal la. loolu waaw loolu du ma ko def. Mm-hmm. parce que nit ki mën nga ko defal mu nekk si ay caaxaan mu si mooy yàlla te loolu bàkkaar boobu noonu. Mm-hmm. yow mu ko liggéey yaa koy àgg ëllëg yow ma mm-hmm. képp koo xam ne tey dama la dama la nootal dama la xoolee ba pare su ma xoolee ba pare. sarax sa sarax nga xam ne moom war a génne ngay génne ba gis sa bët li ma la liggéey nga soog dama dama fay man noonu laa liggéey wàllum noot. waaw man noonu laa liggéeyee. Mhm. xam nga noot moom dafa nekk loo xamante yóbbul. parce que parce que parce que noot nit ki euh, bañ juboo mhm. ba mu bañ juboo loolu loolu nekkul lu yem waaye man moom ku baax ki moom dimbali na dimbali goo xam ne ni képp koo xamante ne jëfandikoo naa wàllu noot. Mhm. da ngay dem ba gis résultat ba gis li mën a liggéeyal ba pare. nga soog di nga soog di fay. incha allah rabi. d' am na solo mu ngi noonu mu di Serigne Saliou Dieng boo ko soxlaa numéro téléphone baa ngi noonu di daw ci écran bi incha allah rabi boo ñëwee comico marin bi foo taxaw rek ci mairie bi boo wootee nañ la jël si sëñ bi secret jaaro bi. waaw secret jaaro bi tamit moo nekk nii xam nga jaaro yi mu bëri na mais ni ku ne da am couleur am comme couleur bi ma sol nii mais jaaro moom képp ko képp koo xamante ne sa loxo dafa bënn waaw loo liggéey du taxaw wala nga bëgg tamit loo liggéey mu toog sa loxo bi incha allah rek moom bu bu buñ si jëflantee moom buñ déggante ba ma xool la ban couleur ngay sol. incha allah rek moom dañuy jëflante mais jaar mooy nekku ñëpp laa ko jox bala mënoo jox ginnaaw xool xam ba xam man nga koo takk wala mënoo ko takk parce mooy si yàlla day toj boo ko takkee ànd ak sa soxna tamit hmm. moo tax képp képp koo xam ne tey garanté woon na yow mënoo yàlla ma la jox jaaro bi incha allah rek waaw man moom moom noonu la hmm. waaw loolu moom suñu borom dimbali si dimbali ko baax loolu mbaa di nga bëgg bëgg nit lu ko neex ba lekk xaalisam ba pare duma ko wax li si nekk moom wax dëgg yàlla moom man moom jooyoo manoon noonu mhm. képp ku ma jëflante dama lay wax la si nekk ba pare ma soo a jëflante yow mhm. waaw soo bëggee baax na soo bëggul tamit nga dem xoole keneen d'accord sëñ bi ma ñëw ci wàllu ndomba gi ah ndomba gi ñetti gaw yi nga xamante ni jamono ji mu ngi toj dëkk bi mhm. su fekkee ndomb bi moom xam nga tey dangaa man ngaa nekk bitim réew wala nga jiite mbooloo te nit ñi chaque jour seen pexe chaque jour da lay pexe di la liggéey waaye ndomb gi moom képp ku ko takk si kàttanu yàlla ak suñu borom xam nga yàlla moom mooy dogal si na yàlla ak suñu borom moom dalay aar ba aar sa njaboot bépp rab wala seytaane wala ku la ku la liggéey moom uh, day faatu moom ndomb boo ko takkee képp ku la liggéey moom day faatu. boo xasee takk ñu ñett gaw bi képp ku la liggéey day faatu bu ñëw si yow jéegul la ay feebar gi noo ko dal moom ba mbàyyi ko fi. Mm-hmm. waaw loolu moom dafa loolu moom ñu ngi koy defal ay kilifa yu bëree bëree bari Mhm. incha allah. am na solo ma ñëw nag ci li nga wax léegi fa laay euh, euh, ñëwaat mu di wàllu liggéey sëñ bi bari ñoo xam ne dañ leen di liggéey ah, ñi ca topp leen fu ñu dem ñu leen mënoo leen a baaxate fu ñu dem ñu naan leen rabal leen sonal te ma gis si ñoo xam ne dem nañoon demoon nañ ba amatuñ yaakaar seen bopp yàlla boole ak ñoom ba nga dimbali leen. waaw su fekkee ne man su man bu fekkee ne da laa liggéey li ma lay jox boo ko sangoo si jour bi ki la liggéey bu ñëwut jégalu la du fanaan barke alxuraan karim waaw loolu moom suñu borom dimbali nañ si moom bépp liggéey bu nekkoon si yow même buñ la liggéeyoon ba suula si armeel muy liggéey bu ñuul bu yeexas yem jour bu jour bu ma la ko joxee waaye li gi ma jox fekk na laa liggéey du ma ko du ma la ko doo ko sangoo si kër boo ko sangoo si kër génnaatee tamit kii bi ma mën naa ba a moo tax si si àll nga koy sangoo wala si géej mhm. bis boo ko boobu noonu boo tegg sa tànk rek muy dañ même même ki la liggéey tamit day day dellu si kawam bu ñëw jégalu la day dellu si kawam waaw. Mm-hmm. am na solo euh, question bi nag xale jigéen yee ma ko yónnee. Mm-hmm. muy waa association Cherche Marie nee nañ ma dem nañ ci télé yi dem nañ ci rajo yi fu nekk dem nañ fa ngir am doom. Mm. Euh, yàlla sunu borom dogal am na ñoo xam ne tey damay wax ne li nga am ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll macha allah. yàlla sunu borom lim la dénk xale yi na ci daara yi kenn xamul lu mu toll. Mm. ñii demoon nañ ba yaakaar ne sax ñoom dootuñu amati doom yàlla sunu borom boole la ak ñoom ba nga suturaal leen ba tey ñoom ay doom ba am ay sët aussi. waaw secret boobu moom benn mag bu baax moo ma ko joxoon te gi te génn àdduna sax si moom laa ko jëloo monsieur Cheikh Abdourahmane Mbacké mu daan mos sama sëriñ sama yaakaar. li nga xam ne moom laay roy si lépp. waaw coolu coolu yëpp moom la man fekkee ne dafa too am doom parce que loolu li koy waral bari na. Mhm. rab da koy waral. wala tamit ngeen feebar waaye man bala maa jëflante yow dama dem dem ndax dem ngeen hôpital ba pare. boo leen demee hôpital ba pare man dama leen seetal su fekkee ne rab la mu wax ko su fekkee ne dañ laa ko mais su fekkee ne moom borom bind na yow war am doom. Mhm. bu ñu jëflantee man dama fay dara man moom wàllum wàllum am doom mu du fayeeku ni dara dama yàlla rek bàyyi nga dem. incha allah rek man moom loolu moom du fayeeku kenn dara wax dëgg yàlla. te mu def naa ko ay nit nit nit ñu gis ay résultat gis naa si koo xam ne tey bëgg di moom Ndiaye la ma envoyé vocal na ma si mbooloo def na jàpp yaa dool nii toll na diggante na ma dem na fu nekk te ma laaj ma ko dërëm te man lool ba ak alxuraan karim képp ku ma woo ma dama la ko defal gratuite. Mm-hmm. incha allah rabi. allahu akbar mu ngi noonu ah numéro téléphone yaa ngi noonu di daw ci réseau bi ah, mu di Serigne Saliou Diène euh, sëñ bi ba tey jigéen ñi tamit xale yi kenn mënatul sëy léegi léegi xale yi dañoo am problème dem nañ ba tuddee seen boobu association Cherche Marie xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo tëw am jëkkër. waaw xale yu jigéen nga xam ne doo tëw am jëkkër ñi si bëri ñoo ko teg seen bopp ñoo ko teg seen bopp parce que xam nga tax tamit sol gu rafet tamit da koy wala muy muy wàllum rab hmm. loolu baaxul parce que nit ki bu bu bu nekk ak yow di di jëflante yow di di yëkkati ñàkkam di la jox daa yaakaar na yow mii war naa war ngaa mën a nekk soxnaam mais ñu si bëri da leen dëj ba duñ am ci kër ba képp koo xamante ne dañuy ñëw di ñoom duñ d'accord ñu si bëri koy def ba xam ne képp koo xam ne da ngay jëflante moom bu demee ba la takk day du ñëwaat wala kano yi kano yi nga xam ne moo la ñuy jëlee affaire règle yi kado yooyu noonu boo ko jëlee nga sànni ko si mbalit am na junne yoo xam ne tey si dara jooj noonu. Mm. si ñuy jëfandikoo mooy waral yow ngay yéex a ngay yéex a am jëkkër wala say régal tamit di di nekk di waaw di bu ñëwee ba bala mu ñëwatee day yàgg. wala tamit ngay tëye am doom loolu la koy waral mais képp koo xam ne jëfandikoo nañ. man li ma lay jox ñetti ajuma nga koy sango boo ko sangoo ñetti ajuma incha allah rek moom fekkee ne suñu borom dogal na moom nga war a am jëkkër moom. bu ñett aaju mi matee moom jëkkër ji nga xam ne jëkkër ju gën si yow la suñu borom tàggate ba mu ñëw incha allah rabbi. ah lii naa ne bu ko xale jigéen ñi <laughs> bu ko xale jigéen ñi dégloo moom dinañ kontaan sëñ bi Bayra Ndiaye. waaw Bayra Ndiaye moom bi man bi ma si yor moom chaque jour ma dama koy wax wax naa ko fu nekk nee naa li ma yor moom mi mu bokk wisoon doomu aadama di ko di ko jaay du fanaan day jaar si kàttanu yàlla mbaaxam waaye képp koo xam ne tamit dañ la ko jox tam dañ jox kaaraange parce que yow mi ko xam ne yow mi koy yow mi ko def sa place sa place am du nekk benn parce que tey mën nañ la ko jox coow lu bëri fekk dem doo ko fekkee parce que cat baaxul te nit ñi dañoo soxor moo dan dan na jox kaaraange kaaraange ba pare ba nga commencé koo songoo bu ko defee incha allah rek moom eh, ñu soxla ñu soxla ko jox nga nga jëfandikoo ko. Mm-hmm. incha allah mm-hmm. am na solo fi may jeexalee nag mu di wàllu papier wàllu papier nag tey nga ci liggéey liggéey boo xamante ni euh, euh, ñu bari bu ñu nee papier dañu yaakaar ne ñu nekk ci diaspora bi la dëgg la ci lañ bokk waaye man li ma gis nga koy liggéey ci wàllu papier bokk na ci mooy tey ki nga xam ne day xëccoo kër ki nga xam ne dañoo nangu terrain wam ku nga xam ne dëkk bi léegi da ngay jékki-jékki rek ñëw ñu jël sa kayit ci ay ci ay ci ay ci bokk na ci tamit ki nga xam ne day déposé liggéey te yooyu yëpp nga dajale ko ci wàllu secret ki tukki tamit taw a ñëw. waaw su fekkee tamit nit daa bëgg a day lijjanti kayit bëgg a génn Sénégal dëkk ba mu bëgg a dem si si suuf si su ma ko su ma ko joxee li ma koy jox bu ko boolee suuf si sangoo ko su moyul yàlla deful li naan li naa njaaloo ba mat ñeent balaa mat ñeent fukki guddeeg benn incha allah rek moom gën a dem si kàttanu yàlla. waaw te man wàllum kayit da ngay dem ba gis résultat man soog may fay man noonu laay mhm. li ma lay ñaanal li ma lay si wàllum kayit da ngay dem ba gis résultat bu boppam su fekkee da nga nekk fii di leen ay kayit da dama la war a seetal ba pare nga génne sarax yi nga war a génne ba nga war a dem ba ba sa visa génn nga soog may fay. Mhm. su fekkee ne tamit da ngaa am terrain tamit ñu nangu ko si yow fu ne la moo si wooyee fii ba Tivaouane Peulh liggéey waaw su fekkee tamit da ngay déposé liggéey tamit li ma la jox tamit hmm. ñaar ajuma nga xay sangoo boo ko sangoo ñaar ajuma incha allah balaa ma ñett ajuma si kàttanu yàlla fekkee sa wërsëg mi ngi foofu noonu si borom gën a dimbale moom ba ba gën a la jël hmm. su fekkee bëgg da ngaa nekk bitim réew tamit bëgg këyit bëgg na sa laate bëgg lépp loolu moom defal nañu suñu bëree bëree bëree bëri incha allah rek moom dangay dem ba gis li ma la liggéeyal ba pare ba sa ñaan ñëw ba sa këyit génn incha allah rek moom suñu borom moom bu dogalee mu génn nga soog ma fay sama xaalis man noonu laay liggéeyee. parce que man moom ñaanuma yàlla lekk alalu nit ba pare te li ma li nga xam ne moom laa la moom laa la liggéeyal. Mm-hmm. parce que ñun dañoo bokk boo xam bu ne maam Cheikh Issa mooy sa maam te maam Cheikh Issa Diène xam ne moom mi nga xam ne dafa dafa toppoon Serigne Touba mooy mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba. Mm-hmm. te moo xam ne moom kase kase moo dem tey Serigne bi liggéeyaloo ko tey wàcce loo ko tey. moo tax lépp loo xamante dañ koy def dañ siy xool suñu diggante suñu borom. parce que euh, leen dafa dafa nekk parce que suñu si si si li ñuy yëngu dafa doy waar. daam ñoo xamante ne dañ leen di wooy ay ay naxaatikat man man du mën ay sëriñ leen parce que nit ki mënul yëkkati même même fekkee dërëm la yow xamoo dërëm boobu nu def ba am ko. ba jox la ko bu la ko joxee nga ne ko tamit ginaa la ñaanal moom si yow yaakaar nga boole ko ko nga nga boole ko ko pare du jot ñaan du jot dara. ñun moom loolu wax dëgg yàlla moom suñu borom tamit dimbali nañu si loolu. ba lépp loo xam ne tey dañ ko jëflante nii dañ si xoolee suñu diggante suñu borom. parce que àdduna nekkul luy wëy ëllëg yom a xëyaam mooy mooy li nga xam ne mooy mooy lu dëkk te te alal yi te kër yi lu mu bëri bëri bëri wala xaalis lu mu bëri bari bëri bis dañ ñëw nga faatu bàyyi ko fi. te amaana sax yow xaalis boobu noonu juróom-ñaari mètre par yi sax amaana sax du duñ la ko si duñ la ko si jëndal keneen moo koy moo koy jënd te ñetti fan bàmmeel moom ku du xalaat mu lu la neex defal ak taxawaayu bisu penc te te suñu borom moom ay waxam moom dara dara dara du ko dindi. moo tax képp koo xamante yaa ngi jëfante ay nit nekk nekk sëriñ boo xam ne da ngay ñaan xoolal suñu diggante suñu borom ba lépp loo xamante yaa ngi koy wax ak nit parce que yaakaar dafa dafa fort yow a nit ki dalaa gis yaakaar am si yow yaakaar bëgg am si am yaakaar am problème yaakaar ne bu ñëwee problème am gën a a faju nga nax ko bole ko ko wala bu lay woo du la jël man de man de wallaahi barke alxuraan karim musuma bole ki nit te mosuma jëflante nit mukk ba mu ba bam si gàccee parce que ñun moom ay taalibe lañ ba pare te bu ne kuy si kuy si sëriñ si Ave Mbacke mu Sëriñ si Ave Mbacke jóge fa si Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne moom moom moo tax man ñëw ma kenn si walla xam-xam bu nekk si sëriñ nga doyloo ko te te xam-xam yëpp ginnaaw yàlla ak jëm Sëriñ Tuubaa moom la moo tax lépp loo xam ne danga nga ko da nga ko ciy def duñ du ci def lu ñaaw ba pare dañu si xool suñu diggante suñu borom. am na solo am na solo mu ngi noonu ah loolu daa jar a loolu daa jar xalaat parce que am na sama benn xarit imposé mosoon nañu dem ci pharmacie ba di jënd yooyu romb rek dégg sëñ Saam naan ñetti fan yi bàmmeel mu tourné waat ndànk dem ñibbi. Ah, nekk sama xarit. mu ngi noonu Serigne Saliou Dieng la numéro téléphone baa ngi noonu adresse bi nekk yëmbal boo ñëwee ba ci mairie yëmbal bi rek incha allah rabbi comico boo wootee rek dinañ la jël si di